Maulas. قسمت بالقمر المنشق إن له من قلبي نسبة مبرورة القسم مولاي Hadi No, Thank you. Thank you. ma Maodo si amoo morom. déedéet. jëfal nga yàlla sa borom. takk rasool ñëpp yeew. tànti dogam ya jël nga ko. tàng ba yónni ba tàng lee. nekk di ndéer nga tàng ndéer. xëy na Thank you. mu tegtal nañ ci ñaar yi mu tudd te mooy mott yi bu yore bu teewee rek am na ay wàll yi ñuy def lu mel noonu loolu mott yi sax am ñoom ñëpp bëri na leen pour ñu woote seen garaama lañ ko def yàlla wala def dara dan danañ si feeñ ci ñu am yoon dana ci loxo boo xam ne sax xëy na moom nekk ci Ayboban muntizam ikram istidrak ve waaye muntizam moom ak yeneen la jëlee nga xam ne lii day doon loo xam ne daal kenn mosu ko gis mu ne su ndax garab buy dox bu garab buy wax ah maanaam boo xam ne dañ ko ren suba ba ci ngoon bu ñu waxal ne ko waxal mu wax kooku mooy wax ñu lu mel noonu moom la wax ci téere su bee nag ba xam ne benn yéefar moo ñëw ne ko daal mën naa la gëm waaye nag bu charte daal garab gee ci xurwa leeral ko ne ab yeneen mu ne ko demal woo ko dama ne ko kaay bu rasul bi dem mu dem ne ko kaay bu yeneen ci yàlla mu daal di garab gi dox boobu dox dox wax suñ jóor ci garab nekk ànd ak rasul moomu mucc bokk na ci mucc saal yi yi nga xam ne yàlla defal na ko bi nga xamee ne Sidna Xadija jox na ko xaalis ndax Sidna Xadija dafa doon jël bu bëri alal ci Quraysh daan jox rek yoo xam ne da nga ñëw jox xaalis wala mas ni ñu dem jaayi ñëwaat ñu seddoo léegi nag moom. gisoon na mandarga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw ci moom di def li nga xam ne moom la waa màgg yi def mu sawati loolu waaye fekk nag am nañu ko déeyoon ñu ko déeyoon ne ko daal kii ak amin mooy yonent bi ñu mu jamono Xadijatu nag di seet loolu dëgg loola déet daal di koy boole bu ñu wax may sura ne ko nag ci dama la booleeg moom rek mu gunge la ci yoon bi wax may sura dee ko ne boo demee benn mandarga mandarga boo gis ci moom rek boo gis ci moom rek boo ñëwee nag mu ko lekk. ndax bu mu dese la tàngoor bi ak aussi. da ngay génn rek ñu dem rek benn niir moo leen di gërëm lekk jëm baaraat bi fu mu jëm rek bu mu tàng tàng maa ngi suñu ak moom jëm bu ñëpp tàngoor moom la wax ne bis lu xaw dem aw niir boo xam ne fu mu toog rek ñu ngi ànd ak moom di ko fegal tàngoor bi bokk na ci. bi nee na Maysara bi ñoo nett na ko bi ñu dem bay tudd Bàjjil Maxdis dafa toog ci benn plateau traité di fa noppalu am benn lampe te te mi ngi toog ci moom nekk ci benn étage bi ko yóoru bi mu séenee mu toog ko rek mu ñëw wax ak moom am keneen ku nekkoon ci bekk dégg bi mu waxee moom laaj ba pare mu ne ko loolu wax ko mu ne ko kii de mooy yonent bi nga ne moom la yàlla mu ñu jabal mu ne ko waaw ah, mu ne ko gis nga rek Là, Tuubaa bi ci tur yoon bi sallallahu alayhi wa sallam. bu ëllëgee boo ko ñëwee doo fekk dara. ba mu dem bu fekk dara. kooku bokk na ci ay mujj saafara. bokk na ci waa Màkka dajaloo ren ne da nga ne ab yonent nga ne waaw ñu ne ko lan moo ci sedd mu ne la bëgg rek wax leen ko ñu ko dañoo bëgg weer bi xaar fa mu nekk. dañ ko war a werwaay ci kii di kii di kii asamaan la léegi ñu ne ko dañoo bëgg mu fa mu nekk mu xaar ñaar benn bi war kaaba gi benn bi war ñëw wax ne leen ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa annaka rasuulullaah soo ko defee rek nga gëm daal di nga ne xaral defal ko ne def ko yóbbu ji weer bi ñu gis ko ñoom ñëpp mu xaar ñëpp ñaari xar-xar benn bi war kaaba gi benn bi ñëw ba ñëw dugg weer war mu génnaat daal di ashhadu annaka rasuulullaah

وظاهر حجره آية يقول سير المستبد إلى إلى أبجبر كذلك يلا ندير أبجبر كذلك أقسم بالقمر moo la koy wax ne gis naa ci weer wi nga xam ne xaroon na da xar boobu day nekk day niroo ak xar benn xaroon xolam di ko ci sànni di ko surtout alima di nampal bi mu nampee ba nga xam ne sax per na nga bu xam nga màkk dëkk teeru la te xale bu jàngee ci bu nekkee ci biir euh, ville bu fi déggee bu fekkee langue bi nekk cosaanam fi la ko déggee nekk foog mu tax si nga xale yi dëkkee dangaa ko dégg ci wolof léegi nag moo taxoon ñoom seen doom yi buñ nampee ba pare dañ leen di béy ci àll ba pour ñu arab boo xam ne arab yi doon fusxa arab boo xam ne cosaan bi la ñu tax benn baat ndax màkk ñëpp a koy ñëw di fa dajaloo loolu taxoon nag ñu bay waat ko ay xat mu nekk benn bés nag mu génn ànd ak xale yi di focc ci ginnaaw kër gi rek di dee fekk ko ak Mikaayil kenn ki dal ko jël rek daaneel xotti xotti waaw raxas ko ba mu set mu delluwaat li mu ko xaree loolu daal di daw dem daal di ah, am na ay lu ko dikkal ay jël nañ ko daaneel ko xotti nañ léegi yaay ji ñëw a bàyyi ji li fekk ñëw ki jot fekk ñëw def na li ñuy def bay dem nee na ñoom salaa sam ba nekk ba nettali ne bi bàyyi ji de bi jàppee ci loxo benn loxo bi mi ngi ci ji loxo ji kon loolu mu ne day niru ak weer bi nga xam ne boo xaroon ñëw sabbaal euh, wax seen yoon ak yonentam day niroo ak xol bi nga xam ne moom la yàlla moom la yàlla yemaloon malaaka yi ñu xool ñu xotti xol bi opéré ko nee na génne la nga xam ne moo jotoon cëru seytaane raxas ko ba mu set ñu kastewaat ko loolu ci saa mu mel dam meloon kooku bokk na ci ay mujjisaat bokk na ci mujjisaat yi yëpp nag eh, keroog bi nga xamee ne mi ngi dem génn Màkka jëm Madina mu Munawwara di gàddaay biñ génnee moom Sidna Sidna Abubakar radiyallaahu anhu dafay ñëw daal di dugg ci xund bi waaw bi ñu ci xunti mi nee nañ xaar fii ba waa màgg xamuñ fuñ jëm di door a génn dem am ko ñetti fan ñu jo ñu xëy nag ñoom topp tànk yi ne daal kii bu demee ni mu commencé am mbooloo bu ñëwaatee bi ak doole kon kenn du ko mën a dégg nañ dem wàññi ko par force delloosi ko def li ñu bëgg ci moom rey ah nee na bi mu ñëwee ci xunti bi ñoom ñu mu rek dugg ci xunti bi ñu fanaan fa yan fa fanaan am nañ fa ñetti fan waa màgg yi di leen topp di leen topp waaye bu ñëwee ne fii daal weesuwul fii daal weesuwul bu ñëwee rek jàll koor duñ gis benn tànk te tànk yi ñëw ba ci xunti bi te mel suñu leen mu ne booba kenn ci ñoom bu xooloon ci tànkam rek ci tànkam ne sax gis ndax ñoom ñi ngeen ci wàcc suñu leen moom la wax ne boo fa sit ku fi laxaari والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغالب من أريم فسيق الدق تما يلقى صلى الله من جبير قنت والصديق كي كوي دقل اتقامنا ولوبا من دقل مؤمن آه، من جبير قنت سيد سيدنا أبو بكر مولد الصديق نتعب موي ترجم كانوا بمجانا dem baytul maqdis jógee fa def miraaj dem ci boromam andi julli yi ci ci genn bi mu ñëwee nettali ne damaa rañaanoon bi dem ci sama borom farataal na ci man julli keroog lañ ne ah Aboubacar de li ñu gëm ki gëm kii nag moom tey la ko weddi nag tey daal la ko weddi ndax fii ak Baytul Maqdis nga xam ne doxu weer la dem doxu weer la dégg muy ñaari weer ah mu ne dem na ko ci gerte guddi ñëwaat dolliwut mu ne dem na ci borom a ñëwaat léegi daal xam naa ci la koy ñëpp nag di ko jëkkalante ñëpp sa jëkkalante Aboubacar sa dee sa waa ji dëgg li mu wax man lan la wax ñu wax ba daaneel mu ne ndax moo ko wax ñu ne ko moo ko wax mu ne kon nag dëgg la yàlla lañ ko tuddee siddiq moom la borom téere wax ne dëgg te moo yeneen salaa sal moom moo jëmmi dëgg ak yi ne moo koy dëgg waaye ñoom ñëpp dañoo gumba seen mel ni gisuñ dara dañu ngi xool ñoom ñu ngi gis ci ndax yàlla daf ci def kéemtaan bañ bu rek benn euh, pedax dafa ñëw daal di fay tàgg daal di fay nen benn jargoñ daal di ñëw lind fa waaw jargoñ bi dafa lind sax ba pare pedax mi ñëw daal di ci kaw lind gi ak waaw daal fay nen ay nen boobu fa la danga gars yi rek pedax mi naaw ñu xool ci jargoñ kuy bëgg dugg ci waaye fii xanaa da ngeen Abu Jahl mi yàlla di bi mu xoolee ba ne xanaa xamu leen ne jargoñ bii lii li mu yàggee lii juutul sax judd moom ba fekk na ñu ngi leen di gis moom la wax nag ne kon ñoom dañoo jot ne sax petax mi nelu fi ci saa si nii jàpp yaakaar ne jargoñ gi bu yàgg tey lii daal lu yàgg la moom la nag wiqaayatullahi ahdat an muda abadin min alwoy wa an ali min al kon daal ku yàlla fekk ku yàlla musal musulug yàlla ku yàlla musal moo ëpp doole ngay wut ay wut bi ko sol pour léegi bu ñu la sànnee bal bu tàkk ah moo ëpp doole yi ko def ay datal yoo xam ne ñi daan def ah tabax ko ba ca kaw nga nekk ci biir di xeex ak ñi ne ci biti te duñ la gis mu ne loolu lépp musul ak yàlla moo ko gën moo ko ëpp doole kon daal loolu ci mu misaal yi la dafa xam ne yàlla ko jox ab yeneen te bu fekkee weddi nañ ko bu indi mu indi sa pour ñu xam ne kii ab yeneen la bari na lool nag ndax te daañu maa ngi wax na ci bii mi yëbane wala mujizaatu lahu taadaan waa abasu mu ne jéem a lim ay mujizaatam fola ndax kenn mënu ko lim lim na ci yu bari ci ci ci ci noonu yëba ah mu ne tibi wal ci mën a xam rek mooy yoo xam ne buñ ko message gisaale nit ñi gis loolu waaye moo gis rek moom moo gisaat yooyu yëpp li tax ñu jox ko mooy lan foofu rek ñu xam ne kii ak loolu bu dee rek wax naa ko ci tàmbali bi day bu dee ab wàllu nitu yàlla dañu ko def lu karaama lay waaye bu boobaa nag bu fekkee gis nañ mu tegu ci yoon rek moom mooy ni fekk na leen wàllu fii waaye bu fekkee daf ko topp léegi maanaam di def lu mel noonu ba noppi ñu gis ne ñu jàpp ne nitu yàlla la waaye mu def ay njaamu bu boobaa loolu kenn du ko ci roy ndax loolu karaama moo tax Sidi Aji Maalik wax ne karaama bi xam ne mooy karaama piir mooy istiqaama tegu ci raay bi të te kenn mënu ko def kooku mooy karaama piir ci wàll waaye am wàll woo xam ne dañ dafay làqatu ci def lu bon dafay làqatu ci lu ñaaw damay làqu ci ci tooñ boroom tooñ moroomam kooku du làqu ñu naan damay làqu léegi du làqu loolu day fekk na ñu jàpp dara ko fekk dara nekk ko ki nekk wàllu bu sàkku karaama du ko wut da koy bett te bu ko te du teggi ci sunna kon bu dee wàllu daal lii karaamam mooy gis léegi moom du teggi tànkam tànkam ci alquran du teggi tànkam ci sunna rasulullah sallallahu alayhi loolu mooy karaama wàllu kon ñu béy ci kon sa loolu dañu jox am yeneen karaama ah, rek dañu ko jox wàll yi am yeneen sax yoo xam ne ay wàll wilaaya wàll yu a am lan amul wilaaya mais mën nañ def loo xam ne xarkul aada la waaye fekk na ñoom fekk sa ay kàccoor lañ kooku la istisna lay tudd kooku ñoom eh, yàlla da leen ciy topp rek balaa ba léegi duñ duñ dee ci gëm yàlla ñu dem safara kon karaama ci wàll yi mooy istiqaama mooy topp sunna topp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam si li mu digle jàng alquran di ko jub kocc kooku mooy istiqaama kooku mooy karaama bi nga xam ne moom lañ soxla ci awwal yi yàlla ñu ko yàlla defal allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ala alihi ila siratika mustaqim wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ilahi ya ilahi